Assalamualaikum. Euh, journalistes yi fi de ci conférence de presse bi en a fi à l'honneur aujourd'hui parce que conférence de presse la en a ko animé Nous ngi kontaan qui yéen lool ci seen que saa yu ko la naa soxlaa ngeen teew pour ci Nous Nous am solo de l'occasion, tamit profiter ci occasion bi ci directeur général pour remercier képp koo xam ne teew nga fi tey muy directeur muy conseil spéciaux muy personnel u LONASE nga xam ne tey taxaw nañu fi taxaw bu rafet di leen xamal ne jeu bi tudd yoonu Qatar LONASE d'accord ko lancé ci initiative bu directeur général LONASE Lat Diop li taxoon nag ñu lancé ko mooy que LONASE partenaire historique la ci Lions yi euh, presque avant même 89 la LONASE les lions du football Mangi ngi fàttaliku euh, premier le lion yi LONASE a ko jëndoon dans transporter joueurs C'était vers les années 89 pour wax leen ni depuis boobu ba léegi LONASE dafa mos gëm équipe nationale de football di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom ba def li muy def ni ñu gagné coupe d'Afrique. Afrique mu nekk loo xam ne la ci ñu parce que dañu miser ci lo xamné wa deug na yalla tay gis nañu résultat yi ba tax na ne ba ñu ci processus boobu ñuy accompagner équipe nationale de football dafa am ñoo xam ne dañoo wóolu ñoo tax ba ñu mën a def ay jumtuwaay di ko teg di ko soutenir di ko jàppale équipe nationale de football ñooñu noonu mooy suñuy parieur parieur yi dañoo am fidélité ci lonage gëm ko am confiance am kóolute ci Lonase depuis boobu ba léegi 66 ba tey xam ngeen ne ay ati at yu bari la plus de 50 ans alors parieur yooyu directeur général nag ne ñi ñii comme ñu ngi ànd ak Lonase bi léegi te équipe nationale de football aussi tey qualifié na coupe du monde war dem Qatar dañ leen jox defaral benn récompense récompense boobu moo indi jeu bi jeu concours bi mu yoonu Qatar jeu bi nag comme ni ko madame Ndaw waxee ci ñaari réseau Lonase point bet ou réseau réseau digital mën nga jouer Face boo jouer 5000 francs rek participer directement ci jeu concours ou bien nga dem suñuy kiosque yi fi nekk mooy masse commune internationale ci réseau physique maanaam kiosque yi ak PLR ci jouer lu toll ci 2000 francs mën a bokk ci jeu bi mais bu boobaa da ngay jël sa ticket dem.

l'onage moo leen di billet aller retour Une fois fa aggé aussi bu déplacer déplacé wu frais d'hôtel hébergement l'onage moo jël en charge tant que équipe nationale de football mu ngi foofu kon nak nañu ñaan équipe kon équipe nationale de football continue et final bu ko paris parieurs man fa faa ci jamono jojo déplacement yi def aussi ci biir di dem di dem l'ONAS en charge kon xam ngeen ne cadeau bu am solo la boo xam ne tey ñu ngi koy jagleel suñuy parieur waaw ci biir wax jooju ci biir question yi pardon mu amoon seen benn naatangoo journaliste wax ni LONASE mu ngi liggéey ak ay partenaires di xalaat ay parieur waaw LONASE ana lu mu réserver presse bi ñu ne leen ci suñu biir xalaat LONASE dafa am boo lancé je concours fay am objet bo xamné ci ngay liguey liguey bo moy lañ leen expliquer sànq processus bobu bu ko defee nak yéen nga xamné ne suñu partenaire bu fekkente ne namm ngeen gungee tamit processus bi da ngeen di def demande bu ko defee directeur général saytu ñu xool ñu leen di jappalé ci loolu euh, benen bi aussi moy question bu ñu mujj poser moy ci lu est-ce que ci réseau digital bi rek lañuy jouer pour mëna bok ci jeu concours ñu xamal na leen ci ñaari réseau yépp la ñi nekk digital mën nañoo jouer mais sen minimum 5000 francs junni lañuy la mëna jouer pour mëna bok ci concours bi ñi nekk ci réseau physique bi minimum 2000 francs la mëna jouer pour mëna bok ci concours bi

Euh, nan la. la football. Euh, question bu am solo aussi xam fédération de football ci ay subventions ci ay accompagnement ci ay primes d'objectifs ñu ngi ci mais bi nous avons aussi équipe aussi supporters yéen boo fatale ko bu baax ci finalu Cameroun bi lonas loué na fii avion bo xam dafa yóbbu ay supporters loolu yëpp pour jàppale équipe nationale de football bi aussi occasion la pour ñun au-delà de jeu bi ngay gagné au-delà de prise en charge bi benen idée forte bi ci nek moy aussi dañuy yok dañuy accompagner équipe nationale ci supporter yi nga xam dañu dinañ leen fofu a muy Qatar aujourd'hui nous allons lancer le jeu concours du Hono Qatar tous les parieurs qui auront à jouer jusqu'au prochain tirage feront l'objet tous ceux-là qui vont jouer vont participer au premier tirage qui aura lieu en juillet mm-hmm. après une fois qu'on a tiré ce sera le top départ d'un deuxième concours, du deuxième partie du concours. Tous ceux qui vont jouer après ce tirage-là feront partie du deuxième tirage. Qui va, ce sera en juillet, en août, pardon. Après, on remet les compteurs à zéro uh-huh. et il restera la troisième tranche. Ceux qui vont commencer de août à septembre vont participer au dernier tirage. C'est comme ça qu'on va organiser le show. Alors donc, je dis, je dis à mes chers journalistes, à, mes, à tous ceux qui, sont là, les invités, les collaborateurs, les partenaires, qu'au nom du directeur général, je lance le top départ du jeu concours Yon Qatar.